25 juin 2020 ñëw ak yéen yëglikaay yi mu mel ni ki tey nag sunu lamb la xëy doore ko yëglikaay ba nag tey fu mu xëy fen génn fenn la jàppal ak combat boo xam ne de affiche la boo xam ne nii moom la ñu sunu lamb xëy tey andil ñu ko muy ñaari mbir yoo xam ne seen combat daa mel ni fu mu nekk nii am na koo xam ne wala promoteur boo xam ne sol na daal bëgg koo tëgg muy ki nga xam ne mooy Eumeu Sène ancien roi des arènes ba borom taay si nga ak guy gi borom guy gi mu géej way ñoom daal seen combat ñu nga koy dox yëglikaay bi nag ñëw na ca lu mel ni ki noonu mel ni ki nag ka nga xam ne moom mooy na wax ja ndax moom jàpp na ne day li am ba des daal fi mu nekk nii moom na am na koo xam ne daal mu leen di seet wala boobu ñëw ci ñoom ngir bëgg a taxawal seen combat ak Eumeu Sène lañ leen tamit dëggal na mel ni ki noonu mel ni kon boobu combat daal fi mu nekk nii day buñ sàgg ne daal mu ngi caw yow yoon di waaj a taxaw muy diggante guy gi ak ka nga xam ne moo di Eumeu Sène combat boo xam ne ni moom taxawal na ba ñu war koo bëri mu mel ni ki nag corona ba moo ñëw daaneel leen muy ki nga xam ne moo di Modou Lo ak Ama Baldé yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci ñoom jàpp na ñoom ñaar ñii kan mooy profité ci combat bi nga xam ne dañ koo pousse maanaam reporté ko dax ba ñu jàppoon na ca lay am amatu ca kan daal lay doon ci moom. maanaam li nga xam ne nii moo di aw kaayam yëglekaay ba xëy tey sampal ñu boobu laaj beneen combat boo xam ne nii moom bees ko doon bëgg wala wala ñuy laaj ndax taxaw na am déet combat ba nag daa mel ni fi mu nii moom taxaw na muy diggante faa ak ka nga xam ne moo di Tyson 2 mu mel ni kii nag ñi nga xam ne ñoo di waa Vox Arena daal ñoo fa jaar kàddoog làmb yi daal la ñu tudde seen bopp ca bopp ba Alioune Badara Diouf nekk fa mel ni kii sunu làmb wax nañu loolu record tamit xamal nañu ne boobu combat daal li am ba des daal mooy kat combat moom taxaw na muy diggante Franc ma nga xam ne nii moo nekk ca Parcelles Mboro ak Tyson 2 ma nga xam ne moo nekk écrit ma nga xam ne moo di Tyson moo tax yëg li kay ma ne tay ci ci ñoom ñaar ci seeni palmarès jàppal bu dee nga xam ne ni moo def Franc la ak neuf victoire yi nga xam ne am na ko ci làmb ji daanoogul keneen ka ca des nag di ka nga xam ne nii moo di Tyson 2 moom palmarès ba itam leer nañ la def ndax nag 16 victoire am na ko daan mu toll ci ñaari yoon yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci lu mel ni ki noonu mu mel ni ki nag leneen loo xam ne nii yëglikaay ba ñëw na ca muy mbër yi nga xam ne ni daal ay espoir a leen tudde maanaam daal li tax mbër mel ni lu bokk jàppante ak ñoom bëri ak ñoom xëy ñu xëy ñu woon ka nga xam ne moo di Garga Mbossé ak Sa Thiès ci aw photo yëglikaay bi ni suñu làmb xëy defal ñu loolu keneen koo xam ne nii moom nga xam ne mooy ca bitim réew muy Rocky Balboa Rocky nag daa ni daal télé ba ñuy wax France 2 moom jël nañ ko ngir nag fas yéene suy ak moom loo xam ne ni daal yëglikaay bi daal ñëwal nañ ci moom mu mel ni ki nag géolière daal mbir ma noonu lañ ko tudde muy ay jeux yoo xam ne dañ koy def Rocky Balboa nag moom lañ ca jël ngir mu fas yéene di doxal lu mel ni ki noonu yëglikaay bi moo xëy tey ñëw andil ñu lu mel ni ki noonu buñ fa jógee lañ dem fa nga xam ne ni moom moo di ba tey rek dañuy des ci sunu moo di rëgg ak la nga xam ne nii fi mu nekk nii daal moo di ay sansam ngir mu daj ak ka nga xam ne moo di ki nga xam ne moo di Bombardier yëglikaay ñëw na ci ñaari xale ngi moom yu dëkk Thiès di ay champion muy xam ne moo di Modou Anta ak ambulance bu dee Modou Anta moom ay mbiram daa mel ni mu ngay xaw di dox boog waaye ka nga xam ne moo di ambulance moom ay mbiram daa mel ni xaw naa takk suuf fii mu nekk nii mel ni kon ñoom ñaar taxawaay yi daal du benn yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko Moussa Ndaw moom la mu bëgg gars yi xolaat ko moom nag moom mooy président CRC bu Kaffrine la nga xam ne ni daal mooy lambi Kaffrine moo ko jiite Moussa nag moom la mu jàpp daal ne Alioune ci boppam moo mérité wul wax yu doy waar yi nga xam ne ak wax yu xam ne tegginewul yi nga xam ne ñu ngi ko koy wax moom daa jàpp ne docteur Alioune Sarr moom mérité na leneen lu bokkul ak loolu Moussa Ndaw a ko wax dama fay jóge ba tey moo di ca record record nag tey moom andi nañu Abdou Diouf mi nga xam ne daal li am ba daal fukki at yi nga xam ne moom la ñu génne ak nam ca taxawee ci wàllum làmb kaas combat nga xam ne def na ko ak lam ci jëlee ci ay ndam ak benn defet ba ne am na ko mel ni ki nag àpp daal fi mu nekk moom ko moom record xam ne record toppal nañu ko muy écrit ba nga xam ne moo di kaay baax kaay baax moom daa mel ni seen xaw naa baax wala boog mu jegeeg baax ndax 15 victoire yi nga xam ne dajale nañ ko ak ñetti defet mel ni ki yëglikaay bi jàpp nañ daal 83 pour cent de réussite moom am nañ ko bi saison bi démarré ak fa nga xam ne nii fala daal di taxawee mel ni ki daal loolu mooy li nga xam ne moom lañu journal bi nga xam ne moo di record ëndil tey nag man mii demoon daal voyagé woon demoon ak yaay ñëw naa namoon naa internet yi jot naa ñaan yi ku nekk ma doon laaj foo nekkoon waaye damaa demoon seeti soxna si te xam naa na defe naa ne farata la waaye ndey ma jaaraama ay sa jaaraama yàgg ak Mansour itam jaaraama waaye tey nag sa am sama rakk joo xam ne mami ndooy daal la ñu may tey borom kër ma koy ñaanal yàlla yàlla yàlla def sëy dib ko sama rakk ñi ko sacré kër rakk yi ñu sundooy waaye loo ci mën a dégg Mansour namoon naa gars yi waaye namoon naa micro bi waaw non maa ngi lay ziar day kumba di la fay di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi si yëpp di nuyu fi nga xam ne fi lañ nekk di wax ak ñi ñu waa Mermoz di nuyu waa Léopold yëpp rawatina di ba Kelle Sow moom ak képp fi xëy rek. Babacar ak lay nuyu mais itam du nuyu internet yi comme ni ñu ko waxee namoon nañ ma mais maa leen wax dëgg yàlla gis naa appel yi ak message yi ku nekk di laaj ko nekk mais na ko dama demoon seeti bi comme dama ko xawoon bëj ak soxna seen yooyu loolu la vraiment daal waaw ñoom Khady Rose Ndiaye Asi Ndiaye te Noir ñëpp ndeysaan maa leen di bëggee que xam nga rek ñoom man ak ñoom xam nga cofeel bi dafa yàgg quoi depuis loolu quoi nan nga gisee suñu liggéey allah rafet na xam nga liggéey moom comme li ñuy wax rek affaire yi moom euh, du lu kenn maîtrise en 100 pour cent. ku nekk da ngay tey bu fi Babacar nekkul rek war a si na man dafa fa sam def lu raw la moom def loolu mooy yoon. ëllëg tamit su fi ndey bu ma nekkul keneen moom ay sa law fii xam nga yi noonu lay demee quoi parce que addina moo tudd moom maanaam yàlla bi ñu sàkkee waaj ñu fi ñu ñuy ay la mbir yi day def dem kii ñëw def dem noonu lay macha allah loolu am na solo Babacar dañoo nag ak sunu laam sunu laam boo xam ne nee ñu mi ngi démarché ki nga xam ne mooy euh, mais lu ñu xaw a jaaxal nag fan yii génn nañu waa Eumeu Sène ak euh, waa combat bi nee na seen combat depuis daal desul lu ñu joxe avance Babacar donc benn combat ñaar promoteur moo si nekk. waaw lu yéeme na li am solo ñi nga xam ne ñoom ñooy yore bëri di war a bëri ñoom defe naa ne su promoteur ñëwee ci ñoom wax ak ñoom si wàllum combat. parce que dañu xëy gis la njàng mu wax ki nga xam ne ni moom mooy euh, euh, ki nga xam ne moom mooy euh, nas tamit wax ci compte guy gi mel ni kon ñoom ñun dañ gëm dañu xam le que ni kat am na promoteur bu leen demas bu bëgg combat ma ak guy gi ñu mel ni ki ñoom itam ci liñ leen dégg daa mel ni kon loolu bañuñu ko bu fekkee ne dafa am ñeneen ñu jiitu woon wala communication bi waxoon ak ñoom ba ñu tënk pour boo ma dëkk ma seen ba tamit yaakaar naa day doy waar mais li ci am war nañu mën a xool li nga xam ne moo jaadu ak li war a mën ak ku ci la ngay wax fa nga xam ne euh, di ko mën a assumer pour en cas ëllëg parce que ñëpp comme li may wax rek xam ne rek dina naa quoi après waaw beneen euh, mooy diggante Modou Lo ak euh, ay jafe-jafe àdduna tax tax ba mu nekk si biir kaso bi ne ñu nag tax nag ak coronavirus bi nañ nag Euh, combat bi nga xam ne dañ ko reporté report bi tey kan la profité Ama Baldé ki nga xam ne moom mooy Modou dafa mel nag Modou Lo la gën a xaw a profité parce que ni que Modou Lo moom jëlu avance tout le euh, bi nga xam ne doon na jël 25 millions si loxo yi loo ne combat bi la bi nga xam ne bu tax ñu yàlla ñëw promoteur yàlla fu mën a jàll na ko fa yàlla génn ak jàmm yàlla def tamit feebar bi ñuy wax corona dugg si àddina bi ñu ñaan yàlla mu na li nga xam ne ni mooy làmb ji rawatina ngi ko doon xaar bu dee nag am na bu dee ci li ñu mooy que ni ama moom jotoon na encaissé vingt cinq millions mais Modou jotoon na encaissé kon xëy ah, ñaan yàlla daal combat boobu mu am te itam si kanamu nit Nicolas mi nga xam ne moom mooy béyu combat ba moom mooy moom moo mën a combat loo a dégg combat la bi nga mu dundal ci làmb ñaari mbër lañ yoo xam ne ku ci ne actuellement tey soxla nga na lu bëgg a a feeñ tëgg muy lig Nicolas tax beneen combat boo xam ne taxaw na moom moom coronavirus bi te terewu ko mu taxawal ay combat muy beneen cycle bu bees. Boxe Arena ne ñu nag euh, taxawal na ki nga xam ne muy Franc ak Tyson 2 combat boobu nag moom am na ay revanche bu bëri yu nekk si biir ngi mel ni xam nga Tyson 2 moom moo daanoon na di nga xam ne mooy Boros euh, te nekk ah, partenaire euh, Franc Franc daan aussi Garga 2 te léegi nag mu war a jël nag revanche am si si kaw Franc entre guillemets muy combat xam daa am na ay revanche si biir baba waaw du ma ne la dee parce que li may njëkk a def sax mooy félicité waa Boxe Arena parce que tamit structure bu bees la bu ñëw ci làmb te itam dama naan combat bi ñu tëgg ku ko taxawal ku la ne xamoo làmb itam yaakaar naa ne ah du mën a sotti làmb parce que ku mën a xalaat ki xam ne moom mooy euh, Tyson 2 ak Franc defe naa ne boo xamulee làmb itam lan nga xamul bëriwul waaw la la la jëkk bëriwul kon ñu leen di ñaanal yàlla daal ak bëriwul boobu ak ñamu àndal yàlla nañu réussir seen dugg bu bees boobu di ko ñaan képp kuy tëgg Cheikh Omar sama xarit borom doole xel gars yi fa nekk yëpp parce que structure bi am na si internet lépp am na solo loolu waaye nag euh, revanche yooyu ñu wax am na solo parce que li tax mooy Tyson 2 moom am na loolu waaye mën a moom sonal waa waa waa na ndax naa ne bu daanee Garga 2 daan na ki nga xam ne moom mooy góor a soog ndax dem na ba moment sax sampaloon nañu dund te la ko waral mooy ñi mu daan ak Garga boobu ñu sampal na leen dëgg na am nañ xale boo xam ne itam seen ginnaaw xale la boo xam ne itam amagul defet te ci espoir lam yi ñu yaakaar ëllëg ci la bokk tey bu ko Tyson na nangoo jël bëre ak moom wala moom tamit foofa wàcc na tuuti loxo ngir lan ngir xam ne kat xale yi ñëw nañ màgg nañ te Franc ak moom tey dafay gën a yomb mën nga bàyyi sax affaire yi boo xam ne daal combat bu neexal neex la bëri na ay waaye itam Franc na jàpp ne am naa adversaire <laughs> Tyson 2 maa la ko wax fii de jàpp ko du ñeexu ñebe de wallaahi wallaahi du ñeexu ñebe mën naa bëri man naa xeex loolu moom am na ci loolu am na solo Babacar est xam nga les clés du Fort Boyard. les clés du Fort Boyard dégg naa joli man nag xam nga dama dul man du ma français man sénégalais laa di africain di doomu séeréer di bawal bawal waaw man ay wuure ak ay yoote ay ndam ye yaa ngi dégg ak ay dawal mbege yooyu laa xam. waaw soo déggee maa ngi lay clé du Fort Boyard benn la boo xam ni. la boo xam tubaab yi noo koy def day dal si TV7 ak France 2 lay daw. léegi nag nee ñu nag ki nga xam ne non non ñëpp a koy seetaan fii Sénégal danañ koy wane si chaîne française yi. <laughs> Euh, nee ñu ki nga xam ne mooy Rocky Balboa nekkoon euh, mbër wala boog mbër ba léegi nee ñu nag léegi dañ ko jël pour mu nekk genre géolier maanaam ci jeu bi soo pertee daf lay dugal ba kaso nee ñu nag Rocky mooy jël euh, participants yi ku si perte rek yóbbu la si kaso bi léegi nag Rocky Balboa naa bu ma paree affaire garde nekk na léegi genre euh, garde pénitentiaire si jeune waaw loolu lay taxawee moom rukki añu ko ñu ñaan yàlla réussir rek parce que comme li nga wax rek maanaam euh, nit moom ku nekk ak la nga xam man zëwu xaw ma zolière la xaw ma boyaar ak yooyu dama ko comprendre comme li ma la wax sànq rek mm. maanaam nit ku da nga am sa culture mm. man africain la xëy na loolu culture tubaab yi la ñoo xam sa yooyu ak ñi nga xam ne nii mën na am ay tubaab yu ñu la ñu mais damay séeréer bi bawal bawal ba nga xam ne nii moom lu jëm ci suñu cosaan réew boo ma ci laajee moom danaa la tontu waaye sa yooyu ñu koy ñaan moom la lam ci duggee yàlla ko defee moom mbokki ba boo amiin Babacar su jógee na suñu la may dem fi nga xam ne moom mooy record kon nag si si si xalima abdou abdou na dafa xëy na def benn jàngal nee na euh, Abdou Diouf géant la boo xam ne daal euh, si tey day ko wàcc comme dollar comme ni ko père Bécaye di waxee ni ama seen dollar tey day tey tey day wàcc nee ñu nag Abdou la boo xam ne il n'est pas régulier tey mu am victoire ëllëgee mu am défaite. waaw loolu la day am ci euh, sportif des fois nga nekk ci ay moments yoo xam ne contre performance bi day victoire défaite victoire am na moment am na sax lépp lépp défaite lay doon. waaye li am solo nag présent bi moom dafa am solo nday bokk tey Abdou defe naa ne at mu jot mu ngi bokk mu ngi am combat mu koy tëgg kon defe naa loolu tamit mérite la kon li ci des nag mooy gën a liggéey gën a defarwaat ngir loolu nga xam ne moom mooy eh, irrégularité boobu ñu nga xam ne mooy defet victoire yi mu jéem ko tijji ba nga xam ne dina mën a régulier comme ni ñu ko xam ne ci victoire mais nag euh, sport moo tëdd noonu quoi mais moom yaakaar naa tamit mbër lu bu am mérite parce que yàgg na ci làmb tey itam boobu ba tey mu ngi compétir di jànkuwanteeg ñoo xam ne ay xale lañu di daan ak nag ñëw na si euh, euh, euh, benn bilan écurie Kaay Baax nee nañu daal une saison bien remplie ndax nee am nañu li nga xam ne mooy 15 victoires ak ñetti défaites. waaw moom saison bi maanaam daal seen ma. loolu am na solo trop trop mu mel ni ko foofu tamit ñu ngi di maam ñaaw mu mel ni kon ñoom tamit ñu ngi manaat sa xale yi mel na semaine bu am am solo parce tamit defe naa ne moo lay ne ñu ngi liggéey parce que itam loolu ci te loolu bi muy am defe naa ne boobu saison bi. des na na ay ni kon bu continué woon di félicité waa kaay baax ma nuyu sama yaay mais soo nuyu sama doom Mouhamed bi di artan ne déjà vraiment chéri Khadija Diallo di Rokhaya yaa ngi si biir nuyu Asec Cheikh Koudia Seck euh, depuis Italie di nuyu aussi Abdou Gueye Baye Fall jàmm ngeen euh, Pape Président aussi yaa ngi si biir maa ngi nuyu bu la doon rek di la jox sa wàccuwaay Babacar. am na solo ndey Kumba di nuyu internet yëpp rek rawatina waa Petersen maa ngi leen di bëgg ñoom tamit di leen ñaanal jàmm ah. ñoom Babacar bu mu la ma ñoom moo dul parce que xam nga. des fois waaw yére yi ngay gis nii ñoom ñoo fi faral di génne kon mënu ma leen fàtte. képp ku nekk Petersen rek ay ñoom jib seen xam nga marchand ambulant bi parce que man foog laa bokk parce que baabu bu na xam ne tey bu ma tegee micro bi léegi ñi nga xam ne nii ñoom ku mel ni tudd yaay Sarr xam nga ku mel ni ku mel ni ki nga xam ne mooy Khadou Ndiaye ñëpp Asi ñoom ñëpp ku ci nekk daal eh, maanaam bi Babacar Diagne jàpp nga si combat bi kon ñoom maa ngi di félicité bu baax a baax a baax ñoom ñëpp dugal nañ ci seen loxo ku nga xam ne ni tamit moom moo di taqee ñu koy wax Balla Gaye Junior ca Seras waroon bu ma ñëw bi may dem mu ne ma am jox ma yàpp bu bëree bëree bëri ñu yóbbaale ko teneen kon moom itam maa ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax di ko wax ne yàlla na liggéey bi gën a dox ak nga xam ne moom mooy Abdou sama jarwaat di jarwaatu giseen doomu jox na ma ay fii yaa jàppal xam nga mais li nga daan voyage moom bi may dem wax yàlla gars yi jàppoon nañ si combat bi. corona bi yëngu si dara ba. waaw non corona bi na rek dañ fii ne li ci am solo daal mooy yàlla na ko fi yàlla jëlee képp ku xam ne daal safoo nga ñu di ñu ko saako ci yow waaye ñuy def nga xam moom mooy abu ndur gis naa ne saa bu ma toogee benn fan bu ma gisul rek ko ma di nuyu waa groupe Futurs Médias mu ne muy record Cheikh Abdoulaye xaas yow itam yàlla sa jàmm yàlla maa ngi lay bëgg bu baax a baax. jàmm na si kaw moom ci loolu la bëgg moom xam nga damaa sopp te yàlla tax waaw maa ngi koy bëgg di nuyu Mansour mi newoon ci caméra bi yàgg ci montage bi. ba suba